ji wax ji ñun sénégalais la soit dañuy xool nu mu koy gérer du xeex du xuloo mais na ñëpp génn na ñëpp génn yaay yeeg papa yeeg jeune frère yeeg sœur yeeg tout le monde doit sortir nañu génn parce que am nañ ci droit mais boo demee ba sa biir réew amoo droit génn mais boo ñëwee mais dëkk boobu nga génn dañ ko rek c'est-à-dire n'importe quoi voilà c'est ça loolu laa gëm voilà léegi man li may wax mooy soit ñaari rek point yi rek laay laay terminer. soit les Sénégalais. ñu taxaw luy jeex une bonne fois pour toutes. ñu taxaw lu jeex une bonne fois pour toutes. soit les Sénégalais acceptent de acceptent de soumettre sur les décisions de Macky. ñu doon ay esclavage am. merci beaucoup waaw li nga avancé nga euh, avancé nga wàcc tuuti. aussi nga bokk ci parti bi nga xam ne moom mooy fii teewal fii euh, ki nga xam ne moom mooy euh, Mamadou Dia. Euh, li ñuy wax mbéjum kanam borom moo koy fajal bopp combat bi li soxla soxla Sénégal yi ñëpp la parce que dafa am loo xamante ni suñu droit la suñu bu ñu nangu kenn koo salfaañ